mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen di dalal ay ndaanaan waaye tey ñu toog ak suñu maman boo xamante ne dootuñu ko présenté sénégalais ndax saa su ne taxawaay bu am solo bi nga xamante ni moom taxawee ci réew mi waaye aussi yàgg bégal sénégalais ci way wu neex yi nga xamante ne mi ngi koy way di suñu maman euh, Daba Seye tey nag Sénégal Buzz 221 ñëw seet si ko fas yéenee waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di actualité waaye aussi euh, plus précisément way wu neex yi nga xamante ni way na ko la président de la république Bassirou Diomaye Faye ñu ko siy njukkal bu baax a baax a baax maman Daba ñu ngi am mbégte tey bu baax ci am ak yow jotaay ñu bàyyi la rek nga yokk bokk internet. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama fans yi. Mhm. salaamaaleykum waa diaspora bi. di leen wax rek déwénati ci weeru koor yi ñu nekk. Mhm. waaye di am mbégte ak contentement tey. Mhm. jàkkaarloo ak waa Sénégal ba sant la sant la. macha allah mi ngi kàddu nuyoo yu am am solo bàyyi fi may dooree ak yow rek naka koor gi dafa mel nii koor gi métti na ci kawam de métti na trop koor gi moom saf na trop. Mhm. waaye sant yàlla. sant yàlla loo xamante ni ci at mi yëpp benn yoon lay ñëw. Mhm. ak cant la. Mhm. waaw loolu moom. des fois sax nit ñi dañuy yàkkamti mu ñëw tellement. waaw. ak cant la daal ak cant la waaw kooru Dakar méttiwul de. comme ni ko ñenn di parce tey tàngul. tey tàngul déedéet tàngul nga yàgg woore wala yàgg nga woore feneen fu dul Dakar. man nag euh, xam nga maa ngi dëkk xombal. xombal xombal laa dëkk fa laa juddoo sama yaay sama papa sama famille yëpp fa lañ nekk. am naa fa ay mbokk yu bëree bëri mais man moom fii laa mës a wooree. fii nga mës a wooree <laughs> xam nga woor temps xale moom. Mm-hmm. koor gi du normal. du normal mais actuellement nii da nga koy sellal bu baax. Mm-hmm. waaw sant <laughs> sant yàlla bu baax a baax a baax ah, macha allah. Euh, maman tey ci waxtaan bi mënul ñàkk ñu dooree ko ak li nga xamante ni yaakaar naa ne sénégalais yëpp ñoo ci békk kenn gënu cee békk ku dul ñi nga xamante ne mooy suñu mbokk patriotes yi ndax it way wu neex bi nga xamante ne way nga ko suñu président bu bees bi di Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. Euh, laataa may dugg ci woy bi tey dama bëgg ñu xam Daba patriote la wala Daba dafa fopp ambiance bi waaye jomaay wala lan la lan moo inspiré Daba ba mu dugg ci biir. waaw déjà maa ngi sargal Sénégal yëpp. Mhm. di kontaan tamit di am mbégte bu baax ndaxte ñun ñëpp ay sénégalais lañu. Mhm. fii lañ dëkk fii lañ juddoo Sénégal rek lañu am. Mhm. yàlla dogal nag ci biir sénégalais yi ma nekk ab porteuse de voix. am sañ-sañu jàppale. Mhm. dooleel di jëmel kanam sama réew. bien waaw man bëgguma injustice. Mhm. moo ma def patriote. Mhm. booy xool maa ngi commencé depuis ci anniversaire wu Ousmane Sonko defe naa man may benn artiste bi génnoon def joyeux anniversaire moom président. te budul loolu ñu bokk dëkk xombol. bokk benn koñ bu ñu dëkk xombol benn koñ. côté yaayu Ousmane Sonko yëpp dama leen a xam. macha côté yaayam yëpp. Mhm. dama leen a xam yaayam taan Xadi Ngom. Mhm. taan Betty. Mhm. maanaam ñi mu bokkal ñoom. ba ci maamam yi ñoom ñëpp dama leen a xam ay tantaam ñoom ñëpp. donc déjà dama sot ndax Sénégal. en tant que artiste. dama wane tamit ni man fi laa bokk. Mhm. patriote la. patriote la waaw. Euh, dafa yombul tey artistes yi jël position rawatina fi nga xamante ni foofu la situation bi dëkk bi tolloon parce que ñu bëri gis nañ à chaque fois ñuy wo woote woo seen bopp artistes ci wetu pouvoir rek la ñuy féetewoo. Mhm. daba jël position. Mhm. sans réfléchir pourquoi. waaw xam nga dafa am loo xam daf lay jaral rek choix lay nekk. ok waaw parce que li wax naa la ko léegi. booy xool ñaari camp yëpp ay sénégalais lañu. Ousmane Sonko ak waa. APR mais man patriote la parce que nit faw nga am ay engagement hmm. dafa am solo donc doone artiste laa rek da ngay neutre hmm. ba mbir sotti déedéet da ngay wane sa bopp wane ni man jeunesse bi hmm. ñoom laa àndal man Sénégal moo ma ñor loolu moo waral ma def li ma def doonte woy bi ni mu juddoo sama jëkkër laa toog ñu ndogu ba pare mu ni ma daba kañ ñu bind woy lu bees ci affaire campagne ñu euh, Ousmane Sonko ak Diomaye mm-hmm. man sama boobu ma ne ko ah Mor nii nii tey mu ni ma waaw man ne ko defaral say parole ñu dem ma woyal la comme tout le temps woy yi mooy gën a yomb mm-hmm. parole yi parce que parole yi booy xool war na jël benn moment nga set setalal xam nga segg mm-hmm. mais moom automatiquement yàlla daf ko may loolu mu defar changer morceau bi muy bégee ñu jël ay paroles def ci ñu dugg si woy ko. Mm-hmm. lépp ci deux jours la ñu génne ko parce que affaire yi xatoon na. Mm-hmm. ñu génne ko mais sénégalais yi tamit nag partagé ko partage boo xamante ni. jéggi na mm-hmm. dayo sax. jéggi na dayo waaw. Euh, ci jël position boobu noonu ndax yomboon na. amul woon ay waaw. comme ñu ko ñu bëri bi ma njëkkee def joyeux anniversaire moom amoon na ay menaces. waaw mais keroog laa xam ni patriote yi rek ñoo jar àndal nag. Hmm? parce que dama def joyeux anniversaire bi. frère li ma ci jot ci ay teraanga yu ma patriote di defal. Mhm. mënuma la wax ni mu toll. am na ci sama benn sœur bu nekk Colombo su ñu koy wax Ami Camara. Mhm. dama toog <laughs> mu yónnee ma ci iPhone 15. ndeysaan boobu defe naa ni dama defoon parce sama jëkkër maa ngi koy wax démb ci benn interview moom raar ci am ndam ko su ma ko defee du ma ci am. mais des fois nit def loola dara ba pare. Mhm. nga am ci xel ñaar wala après nga rëcc. mais déedéet macha allah 18 ans ñu ànd ci ren lu ma def loo rek man ndam laa ci jële donc loolu moom njàngat la. bu ma defee joyeux anniversaire moom Ousmane ko moom mhm. président. patriote yi fu ne leen di pàqee di ma laaj seen numéro wéev dañu ma wéeva wéeva ba man dama obligé ma ni waaw moor li moom doy na waar <laughs> miiru Paris même pas trois mois ci la yem. Mhm. wala ay deux mois yooyu ma kenn koo xamante ni Mariama sonk la tudd. Mhm. fekk ma ci hôtel bi ma dal ay onze heures ci suba ñëw ni ma dama gisoon sa publicité topp la ba xam sax ki ngay tëggal mariage yi doomam. Mhm. ci laa ñëwee laaj ko mu ni ma mu ngi la dalal hôtel bi ñëw ak ay teraangaam ay maquillage ay parfum de classe def ci enveloppe boo xamante ni. donc lu naturel laa defoon. Mhm. mais rëccuwuma ko. mais rëccuwuma ko waaw ko. Mhm. lii tamit noonu rek la demee. Euh, ci ci côté menaces yooyu noonu amul ay buntu yoo xamante ne loolu na ko parce que ñu bëri ci artistes yi ñi leen di dimbali la plupart ci état la ñuy nekk ndax amul woon buntu yu mu tëj sa côté. xam ñun d'habitude booy xool lu ñu mës a def xam nga artiste bi moom bu nekkee ci réewam. Mhm. ay kilifaam rek lay yaakaar ci lu muy def. dëgg la jël salle bu mag def ay parrain. ñoo xam ne wuy si la ñoo xam wuy siwun la mais yow da sa objectif bi ngay am mooy woykat nga faw nga woy mhm. te saal yi fi nekk yëpp bëgg nga leen a remplir mhm. donc boo sañoon say kilifa dina jàppale mhm. mais yooyu yëpp amul solo parce que yàlla mooy jàppale jaam te yàlla rek moo fi nekk mais mais amul woon lu mu xaw a gàllankoor nu xam a des fois nga def mbir moo xamante ne da nga koy def ba pare boo ko defee après li ci ñëw da ngay xam ni lii nga defoon rek moo tax. Hmm. mais comme yàlla moo fi nekkal ñëpp moom. Hmm. après yow da ngay dem rek. xam hmm. ne li ci yoon bi mooy ëpp doole. te yàlla mi la def li mu la def moo lay gunge fone. waaw kàddu menaces yooyu noonu lan nga si daan dégg. yenn saa yi nga am koo xamante ne sa nit la peut-être bokk leen jëmukaay. bu la gisee xam nga ne ah man gis naa la gis naa la yaa nga fee kon donc yemal foofu. donc peut-être amoon na ay relations yi ngeen sekk yoo xamante nii ay njariñ a ngi ci woon. mais dañuy dem ba ci biir xam ni yaa ngi ci beneen choix. Mhm. donc dootul ñu tëj seen i porte mais après yow da ngay xam ni li nga def lii moo waral lee rek. Mhm. yenn saa yi nga woo ci nit koo xam ni sa nit la sa mbokk la mais du la jël da xam ne lii moo tax. Mhm. waaw mu mel ni ànd ak Ousmane Sonko métti na ci réew mi na métti na bëgg ko metti na metti na ànd ak moom metti na. Mhm. waaye lépp jeex na tey nag. jeex na tey waaw lépp jeex na. Mhm. sant yàlla sant yàlla bu baax waaw uh-huh. <laughs> macha allah ci campagne bi nag nga ko doon dundee ak. Uh, neexoon na trop parce que gis nañ ne campagne daal daanaka xale daal dama lañ doon topp. ci campagne <laughs> bi neexoon na trop. Uh-huh. neexoon na campagne yi xam nga dafay xumbaloon sax Sénégal. waaw parce que ci campagne bi ngay xamee ni Sénégal benn bopp la. kenn mënu koo mm-hmm. xar ñaar même bu mu metti metti metti nit ñi dañuy ànd ak sago. xam ne lépp ki gagné ak ki perte yëpp ci réew mi lañ dëkk. Mhm. ci lépp benn la. Mhm. donc campagne bi nag man li ci neexoon ci man mooy campagne culture bi mbuur la woon. Mhm. donc may nuyu bu baax ma dem Sonko ana ndax woy bi bi mu génnee dañu jox ko lu bari man ak moom ak moor. lu bari sax. donc non daba foog nga dem ci campagne collective bi soxna Ousmane. waaw ana moom lañ doon jokkonteel di nuyu tamit Mor Kumba bu baax a baax. ndax nag moom. Euh, nit la ku baax mais ana soo ko woyee jotoo ko bu koy gis di la rappeler mm-hmm. boo ko yónnee audio automatiquement mu tontu audio bi mm-hmm. donc nit la ku modeste xam nga fii nit ñi li ñu bëggee nit mooy modeste mm-hmm. comprendre parce que ak lu nit mën a doon nag ak euh, loo bëgg-bëgg nit ki koo bëgg rek na la gestu la donc ci meeting collectif bi doon yónnee ak Ousmane daf ma xamal ni ma ah yow man mosuma xam ne tànta nga ci man. ndeysaan dina ko seetaan li may wax. Mhm. ma xam ne tànta nga ci man. ah kontaan naa trop morceau bi neex na kontaan naa ba pare sa borom kër sama xarit la. macha allah comprendre nga. Mhm. donc loolu mbégte la. Mhm. mbégte la bu mag waaw. Mhm. naka nga jàngatee ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ndax it dañu daan gis bokk benn affaire waaye ku ci ne sa bopp képp nga ciy gis. dem ba Ousmane Sonko jàngalaat Sénégalais ne lu ñëpp bokk nañu ko jox ñëpp même bu dee ki doon dox mënatul. dañu ko jox keneen mu jàllale ko choix am ci Bassirou Diomaye bi nga ko yëgee nu mu la def. waaw xam nga déjà wax naa ko dem nee naa. <laughs> yàlla wanewaat na boppam. dëgg xam nga suñu borom dafa dafa dafa dafa maandu. Mm-hmm. ku maandu la ku koo xamante ni la moom li mu doon rek la doon. wallaahi. waaw. Mm-hmm. moom ci kanamam kenn mënul exister. Mm-hmm. moom kese moo moo mooy lépp. dëgg yow nga xeex nit ñi xeexle la nga dem ba dernier moment nga xam ni a taw bokk. mais sa bët nekk ci benn nit boo xamante ne peut-être yaa xam ni tax nga tànn ko. Mm-hmm. xëy na say jikko ngay gis ci moom wala am na lu la neex ci yow lu nekk ci moom te yow rek yaa ko xam. bien tey am na ñu mu doon doon ñoo xamante ni duñ ko mës a def mënumaa dem kenn du dem. mais Ousmane. Mm-hmm. dañ ni ko mënoo dem mu tànn ni teg ko. Mm-hmm. ni kon na kii dem ca bi mu demee gis na ni. xam na li mu def. jàngat boobu lan la ci nit mën a jàng. mooy baax rek. Mm-hmm. mbaax la loolu. loolu mbaax gu yaatu la loolu xol a koy def. Mm-hmm. loolu ñëpp mënuñu ko. boo xoolee <coughs> usmaan def na fi ay maire. Mm-hmm. def na fi ay député. dëgg la ah tey mu teg fi président. kon nañ bàyyiwaat xel ci yàlla bu baax. xam ni mhm. yàlla li mu daan maye ba léegi mi ngi koy maye. Mhm. te li mu daan maye jógu fi. jógu fi waaw. Mhm. am na ñu set ñu sell ñoo xamante ni. yàlla day sotti ci ñoom ba tey. waaw. kenn du wax euh, koo voteel sax ndax xam nañ ni <laughs> Diomaye nga voteel. bi nga yëgee nouvelle bi. Bassirou Diomaye Faye nekk na président de la république yëg-yëg bi lan la. am mbégte am mbégte xam ne xeex bi yàlla sottal na ko. waaw xeex la woon bu mag. xeex la woon bu mag bu metti sax. déjà bi ma déggee ni yàlla defal na ko ndam rek man automatiquement ci ñi dee la sama xel dem. Oh. ñi tepp toppoon xeex bi. Mhm. ñi faatu ci ñi jëleen ci ay gàllankoor ñi jële ci ay laago automatiquement man ñoom laa jooyal. Mhm. ndam li li muy neex neex ñi ko fekkewul laa jooyal. Mhm. di ñaanal ñu ko fekkee rek muy njiglaay mhm. waaw muy njiglaay mhm. ñu neen di ñaanal yàlla yërëm leen bu baax a baax a baax en tant que artiste tey ñu gis taxawaay bi nga xamante ne am nga ko def sa choix waaye teewut euh, way nga def li ngay def waaye danga nga ko yemale sa bopp tax nit ku ci ne am na droit far mhm. nag ngay gisee ñeneen ñi nga xamante ne say naataangoo artiste lañ maanaam ci wàllu làmb ji musique beeg feneen ak feneen jël position waaye aussi bëgg forcer sénégalais ne kii ngeen war a àndal mais choix am na. <laughs> mais dañ daan gis aussi critique yi ñu daan def. ci seen adversaire ki nga xamante ne ànduñu ak moom. waaw xam nga artiste dafa xaw a dafa xaw a sensible. Mhm. mais nag ku nekk am nga xol. ku nekk am nga gis-gis boo nekkee artiste far ba pare. waaw ne ki nga faral moo baax. Mhm. keneen ki nga faral jël ay. non jël ay critique teg. man donte maa ngi faraloon Ousmane Sonko. Mhm. parce que nit da ngay wax. bien sedd sa bàmmeel. donte maa ngi faraloon Ousmane Sonko. ci xeex bi waaye maa ngi gis ni tonton Amadou Ba nit ku yiw la. Mhm. xam nga nit bul far ba ñaawal. dëgg la bul far ba tilimal dama ko seetaan quartier général. Mhm. man en tant que nit. Mhm. en tant nit ku am yar. en tant que nit koo xamante ni ku dal la. ku dal la ma gis nit ku nitee. nit la macha allah nit la ku posé. donc. Euh, yàlla mooy joxe ndam nag. yàlla mooy joxe ndam waaw yi tamit fi ñu faroon di choix bu bon. Mhm. peut-être yàlla moo doxale ni ko neex may Ousmane Ndam ak Diomaye mais man balaa blâmé wu ma leen. Mm-hmm. déedéet blâmé wu ma leen. mais ndax artiste war naa far ba pare di critiquer. keneen koo xamante ne faral mais bul critiquer. Mm-hmm, parce que léegi dañ sànni nañ sa président bi xeer mënut a solu wax ji leerul kii ndax mën nañoo <laughs> jiite yooyu critique yooyu noonu nga ko doon dégg. waaw mais gis nga gis nga loolu loolu baaxul ci artiste. Mm-hmm. artiste faral faral mu leer. mais déjà critiquer mu baaxul. parce que nit ki ñuy seetaan nit ki nga xamante ne boo xee waxam jàll fu sori dafa war a bàyyi xel. wala xool bu baax li muy wax ak ñu koy déglu. Mm-hmm. lu am solo la parce que maa ngi wax ak yow nii tey. bien sûr ci sama kër la yem. Mm-hmm. nii en tout cas man ak yow. mais mm-hmm. boo génnee fii léegi. dans une heure wala dans deux heures de temps àdduna yëpp jot ci. donc loolu dafa jar a sóoraale. loolu nag. xel da koy def. waaw booy wax wax ak sa sago. booy def di sóoraale. dafa am mhm. solo. Mhm. Mhm. dama koy wax ma nuyu ko au passage ma ne ko exemple la ci artistes yi ndax gis nañ faram waaye daf ci ànd ak dëggu yemale ko ci boppam muy le roi des arènes Modou Lo. ànd nag Amadou Ba campagne. wax na ni moom la faral waaye conseil wul kenn wala mu wax kenn ne ko toppal diw par force. artiste noonu la war a taxawee. waaw nit ku célèbre noonu la war a taxawee. Modou Lo maa ngi koy nuyu sama papa lañ ko tuddee xam nga. waaw ci ñu ko tuddee ak sama papa bokk benn baay. ndeysaan mu jëkkëru Mati Thiam mu xam ko nag fu ma gis. day ñëw waaw cousine cousine. dégg nga di ma teral ci lu bëree bari mhm. Modou Lo nit ku baax la nit ku baax la mais euh, nit ku ku ñu xàmmee noonu lay def. noonu parce que nit kenn moomul kenn. bien sûr amal sa xol amal sa yéene am sa bëgg-bëgg mais nag yemal ci loolu. Mhm. comprendre nga mhm. def ko. mu nekk li nga xamante ne ñëpp xam ne fii nga far. Mhm. mais bul critique wax bu ñaaw baaxul ci kenn. baaxul ci kenn baaxul ci eh, ginnaaw kàddu yu am solo yooyu noonu leneen li nga xamante ne sénégalais yi sànq wala subaak léegi ñu ngi ci waxtaan. Mhm. Eh, Adji Sarr la ñu yëg ni nouvelle yi dafa takk ay bagages génn Sénégal daw parce que ñu bëri ñu ngi jàpp ne bis bu Ousmane Sonko jëlee nguur gi ci kaso bi lay deewee. Mhm. naka nga jàngatee eh, kàddu yooyu noonu ak dem bi nga xamante ne nee nañ dem na ko. man na ci yow laa ko dégg sax. maa ngi la ko wax sànq ne la dem na man man damay nelaw rek man moom <laughs> xëy naa ci suba génn mais ma ñëwee damaa nelaw ba ndogu bi laay yeewuwaat. waaw mhm. ah, mais loolu de moom xam nga man yaakaaru moon sax bu toogoon sax. Mhm. yaakaaru moon Ousmane dal mhm. xol la. na yaay muy jigéen. am ay soxna am ay doom ñuy jigéen. donc defe naa ni même aji bu dawul woon sax Ousmane du am jotam déedéet. parce que moom jigéen la rek peut-être yi fi jaar yëpp doo xam. Mhm. doo dugg ci yenn yi de ndax nit tamit dafay xaw a maandu. Mhm. waaye xam naa ne bu toog boo mhm. mu nekk ren fa yàlla defal jàmm. ànd patriote ñu ngi fépp eh. waaw. <laughs> <laughs> dama wax nga wax de patrie yeeg fépp de <laughs> macha allah loolu tam si kàddu yi am solo la waaye comme ni ñu ko waxee rek ba tey ginnaaw euh, li nga xamante ni mooy nguur gu bees gi ñu bëri dañuy am xel ñaar tey daba justice danga bëgg mu def liggéeyam. Mm-hmm. wala da nga bëgg ñu fàtte. ce choix wu bopp lan la parce ñu bëri ñu ngi naan suñuy milliards suñuy milliards suñuy milliards. Mm-hmm. sa propos lan la. ah gis nga man de am murid laa. Serigne Touba dañ ko tooñ tooñ gu ñëpp teg bët. Mm-hmm. waaye bi ñu bisee dañu bal naa ñëpp te toppe day tax nga tardé. Mm-hmm. donc man conseil bi may jox président Diomaye te xam naa ni sax président Sonko. Mm-hmm. du bàyyi doomam mu def erreur. doonte jaar jaar yu metti am na fi nag. waaye mën ci préfère ñu liggéey. waaw ñu liggéey waaw ñu liggéey. parce que ba dee topp nit di ko gestu li ci sa kanam lu bari mën a la rëcc. Mm-hmm. waaw mm-hmm. te ñi ma gis nii man ñi ma gis ñu dara dul defar Sénégal. Mm-hmm. man loolu laa gis Diomaye président. ak président sonk li ma gis moom te ñu yàgg ko xeex muy combat boo xamante ni bu ñëpp porté la woon mooy Sénégal jaar ci yoon. li ci des nag yëfu état lay nekk doo xam. mais man en tant que sénégalais. en tant que doomi réew mi en tant que porteuse de voix artiste. Mhm. man dama bëgg ñu ñu nekk ci ci am naa yaakaar am yàkkin am wóolute ni ñoom dañuy liggéey. Hmm? waaw ñoom dañuy liggéey. ñoom dañuy liggéey. Mhm. Sénégal dafa bari lu fi tardé. Mhm. bala nga koy xam nga génn bu génnee Sénégal nga dem ci yeneen réew gis système yu réew yooyu ni ñuy doxee par rapport ak ñun suñu réew. da ngay xam ni am nañu sax lu bëree bëri. mais peut-être dañu desee comprendre niñ koy doxalee. Mhm. Mhm. Sénégal dafa bëgg dund gu yomb. bien sûr bëgg bu ñu feebaree dem faju ci loolu laa la bëggoon laaj mhm. ginnaaw yow nekk nga nit koo xamante ne yàgg nga wër àdduna tey gis yeneen dëkk yi ni ñuy dundee. lan nga jàpp ni tey président Diomaye loolu la war a gën a def priorité pour sénégalais. waaw déjà mooy li ma la wax léegi rek. sénégalais ñoom bu dund wàññeekoo. jàmm bari fii ku ci feebar faju ci anam yu woyof. Mhm. ñoom Sénégal neex na ci ñoom. ba pare nag ndaw ñi tamit am am xëy. Mhm. parce que gis nga boo gisee xale yi jël temps yi micro-gua jël gaal gi. Mhm. am na lu leen manqué loolu bu amee fii naataange bi day yokk. ci loolu lañ xam jàmm am liggéey mën a fortaat yóbbu ci kër yi. loolu bu amee. damay ragal kay Diomaye toogaat toogaat toogaat. waaw waaw. daf fi manqué. Mm-hmm. jeunesse bi dañu sonn. Mm-hmm. donc dafa jot xale yi am ci lu ñu jàpp ci am naa man yaakaar. Mm-hmm. am kóolute wóolu sama président xam ne loolu dafay am. incha allah. na ko ñëpp fekke nag. ñi naan mën na ko mënu ko. mën na ko te dina ko def. waaw. am nga yaakaar am naa ci yàkkin bu wér sax. ndax jàppoo ñu bari dañuy naan la ñu daloon 2012 est-ce que dalawaatuñu mën na folli waaye mënta fal. waaw xam nga sénégalais rek ñu am benn problème yàkkamti baaxul. waaw gis nga nit bu fekkente ne muy sogatu yegg si. Mhm. gan danga koy dalal. dëgg la yaatal ko may ko temps. ci xam ne li ko war lépp da koy def. Mhm. ci ni ñu fale ni ñu falee président Diomaye. Mhm. gis nga ko. mësta am premier tour. non lii lii man man <laughs> man man Daba Seye ba ma juddoo ba léegi mosuma gis lu mel nii. Mhm. Senghor mënuma la nettali ci moom dara. dëgg la Abdou boobu comprendre ma dëgg-dëgg politique. man ci moom Ablaye Wade laa xamee luy politique. comprendre yenn yi. comprendre mhm. mais ni ñu fale Diomaye waaw non loolu moo fa dëgg yàlla man xaw ma li ma fekkee woon mais li ma fekkee raar na premier tour premier tour Sénégal yi jeunesse bi yëpp taxaw mhm. ba pare dafa am yu bëri yu ci am xale yi ñu jàppoon ñoom ñëpp amuñ ay carte électeur waaw dem voté li waa ji doon loolu mooy loolu dafa garaaw de li waa ji naan jeunesse bi trompé nañu jeunesse bi de <laughs> bi lay wallaay loolu dafa doy waar donc loolu mhm. message la message la boo xamante ni na Sénégal yëpp bàyyi xel Mm-hmm. lu am solo la. Mm-hmm. donc Diomaye aw ma aw ma tiitaange ci moom. Mm-hmm. waaw aw ma tiitaange ci moom déedéet aw ma ci tiitaange. waaw. <laughs> Eh, muy lu am solo yaakaar naa ne aussi jigéen tamit seen taxawaay ci réew. ci mel ni Mimi Touré Maimouna Bousso. ñett ñooñu dañoo wane seen njàmbaarte wane jigéen ni mu war a taxawee. donc ca budul loolu sax nag fii Sénégal ni mu bindoo. jigéen daf fi bëri doole. waaw. jigéen def fi bëri doole. Mhm. donc mais ñoom ñett seen taxawaay man daf ma marqué donc alhamdulilah. Mhm. sant yàlla. sant yàlla bu xam naa ni ci koor gi lañ nekk waaye tamit aussi patriotes yi bëgg nañ feete victoire bi. ak ah, ah, maman Daba lan nga leen di wax bu ñu waree ak yooyu. yan surprise nga leen dental ak lan lañ mën a xar aussi. waaw ah, incha allah bu ñu waree nag moom maa nga jëm sax nag Italie avant fii. Mm. waaw patriote Italie. Mm-hmm. Bergamo ñoom mm-hmm. ñoo organisé benn association bu tudd ASD. Euh, patriote bu mag nekk fa Ndayante Ñeng mhm. donc ñoom ñoo organisé woo Daba Sey foofu ci Bergamo mhm. le 11 mu fa jugee nag amoon naa sax benn yeneen date mais damay ñibbi si préparé wu damay dem Màkka ren macha allah incha allah mhm. Alassane Mbaye daf ma yóbbu Màkka waaw donc daf ma yóbbu Màkka mais bu ñibbi see ci jàmm ba tabaski ba pare ah am na yeneen ñu fi am incha waaw yal na ko ñëpp fekk waaye way wi nga way foog foog foog waaw patriote kay ñu ngi wootee fu nekk kontaan nag am mbégte. Uh-huh. waaw am mbégte gis nga waa Amérique tamit ñu ngay préparé wu. waa uh-huh. Colombos ñoo xam nga dañ fa uh, uh, Ousmane dafa am benn kii bu mag bu fa nekk. mouvement mouvement bu mag bu nekk Colombos. Uh-huh. te comme sama dëkk la. ma xam ñu yor mouvement bi donc Nafi Pouy Ami Camara. ah ñoom nee ma buñ tabaskee ba ñëw. faaw ñu def dara fii. dëgg la pour uh, fêter. suñu pour fêter suñu victoire bi mm-hmm. incha allah macha allah mi kàdd yu am solo waaye moo nuyuwaat aussi kenn ci ki nga xamante ne moom Ousmane Sonko képp lay nooyee muy Astou Sonko Dioum. depuis Italie Astou Sonko Dioum depuis Italie muy mouvement des eh, parce que lawbe ah, lawbe yi dañ dañoo takk dëgër ñoom ñoo fal président Ousmane affaire lañu beneen affaire mais Italie Italie ay bi sax lay wax surtout diaspora bi ay jàmbaar lañu mais li ma gis Italie ñu voté ko Ousmane Sonko am gis ko Paris waaw wu diaspora bi. Assou Dioum Sonko def na ci liggéey bu am solo. Ah. fa yàlla loolu man mën ko ko ndax bokk naa ci ñi nga xamante dañ doon déggoo ak moom waaye aussi àndoon ak moom aussi ci liggéey bi ba ci euh, campagne yi dafa jóge Italie ñëw Thiès campagne. campagne Assou Dioum Sonko nuyul ma ko bu baax waaye dawa. Assou maa ngi lay nuyu bu baax waaye. <laughs> sama mbokk patriote maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a macha allah bégg nañ ko bu baax a baax a baax daba xamoon naa ni tey euh, li ñu amoon ci temps naam bariwul waaye aussi may nga ñu ko juste rek pour partage ak sénégalais li nga mm-hmm. xamante ne mooy mbégte gu ñu bokk kontaan nañ ci am ak yow jotaay bi yan kàddu ngay dénk président Diomaye laata ñu tàggoo ak sénégalais. mooy am mbégte ci moom rek. Mhm. di wax ni yow fi nekk bultal dara nañu àndandoo jàppale la sénégalais yépp ak sénégalaises yi waa diaspora bi fu nit mën a nekk. Mhm. di doomi réew mi nañ la may tuuti rekk nga daal di jubli ci wàllum liggéey mi. Mhm. waa parce que ñun am na yaakaar ci yow wóolu nañ la ba pare jox la réew mi. bëgg tamit président Ousmane Sonko sa papa jooju nga xamante ne tey fal na maire fal na député ba tey yàlla def mu fal. Mhm. président donc ayca nañ leen liggéey. Mhm. projet bi ñun projet bi intéressé nañ trop. waaw projet bi lu ñu intéressé la. parce que am projet bi li ci nekk dafa bëri. Mhm. projet moom du lu ndaw. donc li ci nekk bëri na te li ci nekk. kenn ku ci nekk mën nga ci jariñu kon nañ leen àndandoo gëm projet bi macha allah waaw kontaan naa kontaan nañu bu baax ci Sénégal yëpp di leen diwee na ci encore. incha allah jërëjëf jërëjëf maam ci jotaay bu am solo bi nga xamante ne si xool nañu ko ak suñu maman Daba Seye à travers Sénégal Buzz 221. nii rek la ñu koy defee ak yéen saa su ne di topp lépp loo xamante ne rek actualité la ñu dalal ci ñi nga xamante ne ñoom ngeen war a déglu di kontaan bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.